ça Est-ce qu'on peut faire Nabi ça Vision. Et... Eh, laf cat laf cat laf cat laf le premier ministre laf chat, laf chat, président Ousmane Sonko yal na la yàlla est-ce qu'on peut faire ça Ousmane Sonko boo njëkkoo del balé? tey damaa kontaan kontaan kontaan Yo, saa yow waxee rek mbégte yi ñëw si xol. Ça beau waxee rek faj nit ñi nit ñi stressé un discours jamais tenu par un africain hein, devant un leader occidental. jamais mosul am c'est la première fois Ousmane Sonko yaay gaynde Ousmane Sonko bu ñu naan góor fit yow ya tax ñu koy wax yow yaay gaynde lu la sa bët yi xañu hein sa fit dula ko xañ Ousmane Sonko tay ya waxante adina tey yaa waxanteeg Europe wax ak États-Unis wax ak euh, àddina wërngal képp kuy nit ku weex nga wax ak moom nii waaye Ousmane Sonko mii moom moom moom moom moom kii ti Naby Vision man tey danga maa bégloo bégloo bégloo damaa yuuxu ba meew laa doon naan meew tellement que wax yi nga doon wax benn boo ci wax rek man non kontante gi may àndal kontante gi nga def tey ci patriote yi Ousmane Sonko yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla yokk yal na la yàlla may wér yal na la yàlla may gudd fan yal na la yàlla lafal catu weñ gu weex yal na la yàlla lafal catu weñ gu ñuul ma ni yow yaay gaynde laa la wax nii bu ñu naan góor rek góoroo góor yow la seen àddina ba àddina daj yow la macha allah. japp di def ni rek bu ñu né doy na nga jëlaat yar gi rek di caw di caw di caw di caw di caw si dëgg nak tek ko ci dëgg tek ko ci sa aqulaawu taala li nga xamanteni ni pan panafricain bépp patriote képp ki nga xamanteni ni gëm nga deru nit ku ñuul ki ah mom nga xala mom ngay xalaat yow waxal nga nu yow waxal nga nu lepp macha allah yalla la fay. Naby Vision merci merci encore une fois de la ñaanal rek yow dal guddal fan te wër salaam les patriotes nuyu na len siyaar len xana di siyaar patriotes yëpp rek ak Seydina Ousmane ak Cheikh Mouhamadou Bassir <laughs> wóor na yàlla lu waay lu waay dajoon 2021 ak 2024 dañ ko nos ci 50 ans yi rek mun ko yaanu nañu fi yaar yaakaar laa wax rek ba ngeen ba ñëpp fekk nos gi <laughs> jël si naa li may <laughs> yalla xam na ne senegal instant yi ku ne neexut rek da nga jubali ku ne neexut ab sàcc nga ku ne neexut ab jaakat doro nga ku ne neexut euh, ab jaakat yamba nga ku ne neexut ab agresseur nga manam ñu jub ñëpp ñu jub ñëpp senegal ñu ci ñoom maanaam nag ki nga xamanteni ni bëggul Ousmane Sonko nak ak bëggul Bassirou Diomaye Faye nag moom Sénégal mënut neex ci mom parce que xol bu tàng ci lay dëkk xol bu na moom munut a borom mun cee nekk ba pare Sénégal di neex ci moom mënut a nekk. waaye bay boo bay boo ñu xam ne dinañ noosa noos ba noosu dara neewut de <laughs> Sénégal dara neex ay waay waay lii. <laughs> waaw yow waaw. yow lan la la sonkoo ëppalee ba doon koo doonut lan la la ëppalee ba gën laa bëgg réew mi wala mu ëpp la ci yitte wala mu ëpp la ci yéene. xanaa da kuñ fi jur comme ni ñu fi jure rek xanaa da koo xam ne réew mi ndeyam di baayam ay mbokkam yëpp ne ci biir réew mi itte jii mu am ak taxawaayam bu rafet bii ak yéeneem ju sell ji lan la lu nekk ci moom lu nekku ci yow loola lan la te ñoo jéem jéem a génne suñu bopp ci lii mu ñu bëgg a génne neem bëgguñoo moom suñu bopp neem bëgg nañoo moom suñu bopp bu ñu amoon ngoru mën a am taxawaayit ñu war a am itti ju tool ne képp ko taxaw ñu taxaw sa ginnaaw dooleel la ba ñëpp ragal la ba képp ku dund rek bàyyi la xel jaadu na nag ñun ñëpp ñu delloo ko njukkal ju tool ne jug taxaw taxawu ko ci lépp ba mu xam ne ñu ñii muy xëyal di ñu gontal jar nañ lépp ba tubaab yi bàyyi ko xel ragale ko seeni askan Naby Vision. bu loolu amee de daañu mën a dana gën a mën a am taxawaay bu tool ne sàmmal ñu suñu alal ba mu gën a sakkan kon buñ bàyyi la gën ci li ñu am ñu koy sàggane ba kenn di ko yeb di ko xeebe ci ñun wala kenn di ko bëgg a yeb di ko jaare ci ñun nañu taxaw takku te taxawu ko ngir yàlla te roy ko ci jikko yam am ci yu baax Yam amutit kuka am ci ñun te muy lu baax nga sot ko ci ndab li bu yàggee lépp baax xam ne doole ku nekk ci ñun doo dimbali moroomam Sénégal du réew mu ñu séddoo waaye réew mu la bool bi képp ku set mën cee sukk jariñu ku loxoom taq nag bu ñu mukk ñun ñu sukk ci ndab muy xajamal ga kon jot na ñu man koo takku taxaw ngir yoon wii réew mi jëm mu jëm kanam lool réew mi mi ngi dox jëm ci ak soppiku ak tegu ci yoon ngal la bu ñu yàq buñ nangu ko yàq moo xam ci biir réew la ak biti réew bu nangu saay-saay si nga xam ne seen bakkan yi bopp yi dong lañ topp mosuñoo bëgg réew mi mosuñoo bëggal njariñu ña dëkk réew mi lu yàqu ñoo ko yàq buñ leen wutal buñ leen wutal lay nan dooleel ñin fal jàppale leen taxawu leen wal leen suñu soutien total buñ bëggee am lañu bëgg buñ ko defee yàlla dañuy suturaal kon na senegal yëpp jóg roy ci ñoom ñii nga xam ne am nañ taxawaay ñun ñi leen fal ñu taxawu leen ba kenn ku du ñoom du ñeme wax wala mu jëf jëf ju juuyoo jëmale ko ci ñoom ña nga xam ne yéen ñi am taxawaay yéena leen taxawu ban taxaw fi nekk tey kon nga la ñu ngi ñaan yàlla mu suturaal Sénégal Naby Vision te lépp lu bon mu génn ko ci réew mi te njëriñ yëpp mu jox ko waa réew mi yàlla na yàlla sàmm Ousmane Sonko ak képp ku am yéene ji mu am ak koo mën a doon yàlla na yàlla sàmm te sàmm réew mi te defal ndam Sénégal te mosal ñu ci lépp ak képp ku ñu ku ñu bëggal lu lu baax ndax réew bu doxee jëm ci développement lu ne am fa zircon fer gaz espace naaj ndox gaz lépp am fa réew moomu bu ñu xamee seen bopp dootu jéggaandi dara waaye na dañu bañ a yàkkamti ànd courage ànd ak ak gor golu wañ ciow yi ak wax ji ku ne fa nga man ca fa nga ne kuna ne def la la war ku nek don sa do sa ku nek don sa am ambassadeur bopp ambassadeur bop fo ma nek lol moy tax am rew jëm kanam patriote nako ñepp don, doon mu jiital mi ci lepp bay intérêt yi te te dajé dajé ci ndariñ ya bu ko defé ñepp mën aywa siyaarati màggal bég ak bégle sopp ak wóolu. sa yaram day dow sax sa yaram day daw ba da ngay bëgg doyal ci dund. billaahi wallaahi tallaahi léegi yéen ñi nga xamante ni yàlla dogal na yéen a ngi taq rajo yi. gis ngeen kii fi ko sénégalais yi tegoon dafa raw ba léegi sopp bëgg wóolu di ko jàppale gauche ak droite avant ak en arrière kaw ak suuf encercler ko kon may leen seen bopp jàmm te noppal seen bopp te xam ni kii <laughs> nit la ci biir nit mais différent ak yéen ñi nga xamante ni saltel ngeen fi nekkee wax wax bu ñaaw kii sénégalais yi ñoo ko jàppale ñoo ànd ak moom ak seexam mais président Sonko premier ministre mais tu as bien zappé <laughs> barke Serigne mais gis nga nit da xam di la jàpp xam nga sañse bàkk la yow sa bind ni la yàlla bindee sa isil loo sol mu dem mais tian bee mais nag waxal gars yi ban téere la ñawal gars yi dem ragi ko sañse bi il faut mu génn ci tabaski bi tabaski bi gars yëpp moom lañ sol loolu la yàlla dogal sénégalais yee bëgg président Diomaye ak président Ousmane Sonko premier ministre xool leen ko tey li nekk ci mbooloo ci université ci biti xajuñu ci biir boo boo triplé woon salle bi maanaam li nekkoon ci salle bi ak li nekkoon ci biti boo ko yóbboon stade amitié am ñu dul dugg mooy maanaam dama la bëgg a kii ba léegi xam nga yéen a ngi kaas naan wàññiwul dund yéen a ngi koy kaas wàññiwul dund li mu waxoon mais sénégalais yi ba légui ñu nga and ak mom ki faluñu ñuko pour sen yooyu non ngeen wax non ki mënu leen koo ak ñun ki bëgg 100% pour bis bis ba tranquille ba lijjantil parce que mom piano piano lay def affaire yi mais yen ñiy wax yéen ñëpp xam ngeen di ngeen noppi bu dee ngeen di jaay fii la fit fii la bude bu dee bari la

Kostim ngay sol complexe ay tuba bi jël suñu geej gi di jaay ay tuba tubaab bi bu ñuy wax da ngay seug do tonte tubarikal pro dekk bi da ngeen ko bokk ak seen ay nawle dekk bi seen ay nawle ngeen ko bokkal waye yeen daal ngeen nek ci dekk bi rek di sincère di beau di jantal bro jantal ngeen nag yàgg ya, jumaay jantal eh, ngeen nag jantal ngeen boo ngeen mën ngeen a sañse yéen a ngi chay sen kristiru rew. tubaarikàlla yéen ñii di ngeen nekk génn len si à tout moment mën ngeen a jékki ne am na ko de. wala am na ko xam ne dem na jeli ko karam. yéen ni génn len si Ki moom kar jaa ko koy rey ci rew. Hmm? yow bëgg critiquer rek pour critiquer ah opposé wu par force waa ñun bañ a luñ leen ngeen opposé wu wan doo leen xaar ba am loo leen opposé wu may wax mu naan Ousmane Sonko dafa wax waxeet li mu waxoon man waxoon naa leen ni lii duñ ko mës a def duñu mës a criminaliser euh, borom ñaari turi ci biir réew dama ne la sa vidéo bu mënuma ko dugal ndax waa TikTok dañ koy bañ waaw Sénégalais yi ku bëgg mën ngaa dem seetaani ji ko naa fekk bu mag bi nga doon ŋaangal booy bi wadd yow Aline Sow ngappuñ ma la te yéex nañ la juutu nañ la. kar jaaga lay rey de ma ne naanal ndox mu sedd sa xol bi wàcc. Ousmane Sonko ak monsieur Mélenchon tay lan lañ doon wax relation bi Afrique wara am ak euh, dëkk Europe at ak extérieur. nabi Vision. lan motax ñun war ñoo mëna and and nang lay diko wax ne ko ànd naa mom ci lu bëri mais am na ay points yu ñu àndul ñoom ñaar muy lu melni ni wàllum jigen parce que ñun suñu ada ak ciosan moko nangul comme ñoom France ga ñu nekk. ni ñu bëggulee nit di am ñaari jabar te muy seen loi te sénégalais bu fa nekk africain bu fa dem tënku ci loolu jullit bu fa dem tënku ci loolu noonu lañ leen di waxee ñoom it nañu tënku ci ci li nga xamante ni suñu réalité ak suñuy jëfalin moo ko nanguwul te loolu góor jigéen ci la bokk ne ko dinañ ko gérer ci suñu façon ndax kay maanaam yéen niñ leen bàyyee yéen ngeen bañ yéen seen ñaari jabar ba suñu ñëwee toog ci seeni loi yéen ñun bàyyee leen ñu noonu ba ñun suñuy ngëm ndam tamit ñu ko ni ñu ko bëggee waaw nabi Vision nga yaakaar ni Ousmane Sonko dafa waroon toog naan malation c'est que patati patata ay waay mbete kuy tàggoo ñun li ñuy def ñun lu suñu yoon pour ñu wax ko euh, Mélenchon hmm? Ousmane Sonko sénégalais yi la dig waaw kay te loolu ci assemblée bi lañ koy defee lan moo ñu koy may ñu am majorité assemblée bi la fa nekkoon moo fa nekk ba léegi ba ñuy bañ luwaa boobu waa dañ koo tasagum doo leen may xale bi mu toog noppaliku tuuti doo leen ñu may yéen ngeen xaar ba ñu tas assemblée bi ba luwaa war faa mun a dugg ba mu dugg fa ñu ne déet ñun sénégalais yi ñu doo ko wax ne Ousmane Sonko li ñu waxoon def ñu ko mu naan pour wax ko nii rek pour mu xam ni ñun euh, Ousmane Sonko àndul ci loolu ñun lu suñu yoon ci wax ak euh, wax Malasio ne ko dañ koy criminaliser. yow moom yaay jaam yooyu nga xamante ne suñu la libéré. Naby Vision nga toog ne doo dem balaa maa dee ngay bëba bëb yi jàppee sa bopp tubaab tubaab yi ñuul yi ñoo gën a soof yéen tubaab yi weextaal yi sax ñoo leen gën doxal fa wi may wax mu naan Ousmane Sonko waxul dëgg la mu waxoon changé na ko euh, Macky Sall li Ousmane Sonko wax nii loolu la Macky la waxoon mën a kàcc Macky Sall daane woon Barack Obama ne ko ñun pareeguñu ñu mun naa firnde lu ne mooy mun na am mun nañoo pare waaye léegi Ousmane Sonko ni mu ne mun nañ ñun dinañ ko euh, euh, maanaam dinañ ko gérer ñun ci suñu façon munoo yow munoo gis ni suñu façon mooy li Afrique yëpp bëgg li li sénégale yëpp bëgg mooy criminaliser munoo gis naa fekk yu mag yi ngeen doon non kii jéppi naa ko trop. Naby Vision. muy mburoog ku bokk ak ma jàmbal